Sénégal maanaam. ndax dama romb ci arrêt bi dajeeg euh, euh, xale bu jigéen bi taxaw. waaw mu abbu ma téléphone. mu abbu la téléphone. waaw na day woote abbu téléphone abbu téléphone waaw. léegi bi téléphone. Hmm. ma ko mu woote. moom nga abal kii mu woote. waaw ma abal ko mu woote. waaw léegi bi may dem. Hmm. kii dab ma daal di yuuxu sàcc. fii moom dëgg rek fii jib te lu dul dëgg du fi jib. comme indi nga leen ci yoon def nga lu rafet yéen ñaari eh yaay ñaari kanamu assassin yooyu kan moo njëkk wax ci yéen ñaar. jamono ju ñu toll nii. jigéen yaa ngi nekk si waa si marché yi. ñii ñoo ngi toog si bureau yi. ñii dem si armée yi. ñëpp di dóor waar. ñaar ñi nag xool yoon bu gën a bon. jël ko muy sàcc. monsieur le président ñaar ñi